salaamaaleykum mbokk ak Pexxe TV salaamaaleykum mboolem rajo gis ngeen nee naa leen gars bu leen fàtte masque yi da leen takk nday masque gis nee naa leen moo tax ñu génne nday si corona yi boobu ba léegi takk leen nday masque ñu génn si corona bi ay 30 nday 7 cas ko bàyyi ay di ñoo nday reewaa i day takk maski yi takk ko xam nga aj ko nii def nii boo mënee sax def nday nii def ko parce que xam nga ñandu beeg xam nga Sénégal dañoo mën a nday tëf da gis ko wax sama lay tëf li wax la sa wax na nga def gaan mooy tëran eh. sama doomu tay doomu raam bi ba léegi mi ngi hôpital médicament yi moom sama test ba léegi dafa négatif maa ngi sant yàlla nag waaw tey nag xam ne moom mooy dëmm yi artiste yi lekkante nday seen biir rek lañ nekk kon ma simi nday sama masque wax ak ñoom sax doomu raam yi artiste yi dañuy nday lekkante comme ay nuuxóor yéen yéenay yéen doomu raam am na cinq yoo xam ne dañoo dem à la retraite ñoom moom dafa mel ni sax pour ñu toog di bind sax dañuy am problème quoi ku mel ni Abou moom dafa mel ni dafa ñëw xëftal rek commencé gars yi déglu ko rek mu génnaat léegi day ànd ak mu lay soow neen day def day la mën a faj kan Abou Cubalo ah. borom géeju ni maamu laay dem ba géej taxaw naan géej amul banqaas liggéey bi da ngay dem wuti foo ko génnewee nekkul géej artiste bu bare nday diggante bi da ngeen liggéey ay dëmm ngeen lekkante seen biir rek ay nuuxóor bare lekkante bi gis nga yow kii Wally Seck yow am yaa ngi si kaw yow malheureusement sa papa dafa xam aar bi moo tax mu rawale la Pamar Dieng attention kii nu mu tudd Momo Dieng attention yow mi nga xam ne yow yaay kii nu mu tudd saxati Sidi Diop yow moom say làmb fan yi mi ngi kamaj kamaj mu kamaj attention xam naa ne boo moytuwul moom sa fay nga jël ustaas ci ustaas yi <laughs> alxuraan ñun ñëpp jàng nañ ko ba xara ñoo leen ko gën a mokkal foofu mais ah, Modou Fall toog naan waaw ustaas yi duñ promotion ah, da doon jàng pour promotion yàlla wàcce na corona doo lekk doo leen lekk ndey dara fii nii si weeru koor bi dara da doon maa jàng ñu lay jot ay conférence boo nee ay trois cent mille ay quatre cent mille nga ñu rey ay ginaar waaye ren am leen ngeen ni nday korite moo Fall nee na moom waa c'est que Sénégal ñoo mën a catu saram nday catu bu ñu la catoo foofu naan dañoo cat merci corona jaajëf corona cay corona gars yi préparé leen nday weeru koor nag xam naa ne weeru koor am na ñoo xam ne masque yi arrangé nañ leen koy def lox fi nday bañ a di lekk loolu la nga si nday bàyyi xel ku fi bloc nday ba jaman jàpp la ñuy condamné sa nday ay dix ans doomu raam xam nga daaw am na ñoo xamante ni si duus lañ daan dugg di lekk mbiskit ren bu leen nday lekk nii def nii de gis ngeen masque yi def leen ko nii tuuti moo gën a wóor quoi Macky Sall jàpp si ku ma gis nga sol nday masque sa kanam gi def nii man ñëw fëgg la nday ñu fangee nag waxuma leen yéen ñu fangee wi laay wax doomu raam yi yow Assane Diouf ci Assane Diouf sama grand nga ku baax nga mais Assane Diouf vrai doomu raam nga yow ñu may la baaraam nga jël loxo am sa gis mag kii weer mel ni nawetaan waaye Assane Diouf yaay nga nag balaa malaaka yi ñii di ñëw man maa ñëw rajaxe sa nday man Zazu la fu man maay rajaxe sa nday yow sa sikkin boobu di mel ni nday màggatu bëy Assane Diouf yaay doomu raam yow ana weeru koor nga toog. naan waaw sénégalais yi jël leen seen temps yow bu la bi jàppoon yow kenn du la faj yow moom bu la bi jàppoon moom Macky danaan kii sànni leen ko di ko jox ndoxu corona ba nga nday dee ndax yow doomu raam amuloo nday njëriñ dara waaw ga ay nee fi mooy rajax du ma mayee dara gis ngeen sama mbool dabi fii ku fi dob dob dama lay rajaxe di leen jox nag di dajee bu tumuroo insha allah ay